gannaaw bi ñu yégee dañ leen di tudd ci coowal suuf ca Medinatu Salaam famille yum ak askan wi nga xam te ni ni ñoo yeewoo ca village bu Kokoy daal dinañu organiser ñoom aussi benn point de presse ngir indi leeral ci coow li nga xam te ni nii jamono ji mooy lëmbee ca Medinatu Salaam te nee ñu li nga xam ne moom jaral na leen dinañ ko jaral ñun ñi nga xam ne ñoom ñoo moom suñu suuf muy suñu suñu pap suñu papa ak suuf suñu maam lu mu leen jaral moom danañ jaral lu ko ëpp amul sax wax comme ni ko kii waxee njoom waxee yi fii moom du fi yem ndax ñun ñëpp mànkoo nañu li ñu xam noonu noonu la ñu mànkoo noonu la ñu mànkoo yow nee nañ nit ñi ay sàcc lañ yow nga dëkk ak sàcc bi xam sàcc bi hmm? xam fu mu dëkk hmm? nga ne yow moo jël sa alal te doo ko yóbbu si yoon nañu yóbbu si yoon ñun ñi ñun ñi ay doomu kookaay lañ cosaane fii. ngir nag fay coow li tax na sax équipe municipale bi woo ñaar ñi am di te ne siq mbir mi ni mel ngir ñu toog waxtaan ngir wut ci ak saafara. ku ne xam na ni sama buntu duma ko tëj te mbir mi mu sotti ta rafet rek laa ci bëgg kii dem ci biir nit ñi nag di dem ci ñoom pour mu sotti ta rafet kooku ku jëm si ci moom wax dëgg yàlla yaa ko yàggal donc loolu nga wax noonu mooy sama proposition mooy nañu toog autour d'une table ñu bokk ñu ñëpp waxtaan leneen la ca des itam ñooñu jàppewuma ko coow dama ko jàppe ni man naa am dafa am lu ñu bëgg a xam foofu laa ko jàppe coowal suuf bi nga xam te ne nii jamono ji nag mooy lëmbe ci diwaanu Malicounda ca faafee nga xam te mooy ci Medinatu Salaam boo deful ndànk rek dina indi ak coow loo xamante ni nii pour fay ko du yomb ndax nag ñaari kaa yi nga xam te ni ñoo ko séq kenn ku nekk su ñoom jàppul bàyyindi donte ni sax équipe municipale bi moom jamono ji mi ngi ciy dox tànkum jàmm ngir rek ay woowee mën a fay ci ni mu gën a rafetee